Sénégal dem ba Mali sunu mbokk docteur Thierno euh, Mahi Tall di kenn ci famille Cheikh Omar Ta Fouti Tall nee gis na ko ñu ngi ko gis ci Ségou gis ko ci Massina mbooloo it ñoo ko gis lii mooy li ñu sarexa sant bu ñu ko gisee te doyloo xibaar ya toppatoo ko ba am ci lu wér ñu sukkandiku ci tey di samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru korite dajeet fanweeri fan ci weeru avril weer wi feeñ na suba di dimanche di benn fan ci weeru me day dajeeg benn fan ci weeru korite dañ ciy wori dañ ciy julli korite ñaan yàlla mu nongul ñu nongul jullit yépp hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain kon ñu xam ko yéenay joxe ñooy déglu Euh, lu dem aju ci liggéey bi nga xam ne dañ koo bokk ak yéen muy liggéeyu commission bi kii sëñ Talla Diop moom lañ sa communication am na ku muy ku koy jàppale sëriñ Mor Sarr dañ doon ñaan chaque fois bu lu mel nii amee bu communication amee ñu ko mënee vérifier ci sëñ Talla wala ñu di ko ko jox mu di ko déglu maanaam temps bi ñu ne ko bu dee écrit mu ngi ci pass sàngam bu dee dañ koy wax passé ñu ne ko dinañ ko passé heure tel bu dee télévision la bu dee rajo su ko defee suivi boobu ñun daf ñuy arrangé ndax léeg-léeg xibaar yi day am ba pare ñeneen ñoo ñu koy jox te ñun ñoo ko war a joxe n'est-ce ñun bu ñu joxee bu ñu leen invité fii ba ngeen ñëw defal ñu liggéey bu fiable bu mel nii bu ngeen paree nag ba distribuer ko ñun waratuñoo mën a am di ko jëli feneen xamuñu nu mu demee. xaw ma nag xëy na sama xam-xama ci àggul mais man maa ngi ñaan maa ngi ñaan pour liggéey bi gën a fiable lu ngeen di distribuer bala ngeen fee jóge wala bu ngeen fi jógee ku ne am na téléphone am nga ne ko sëñ Talla xibaar tel dinañ ko dugal waxtu tel bu dee écrit nga ne ko mu ngi ci passe tel bu dee télévision nga ne ko passé ko heure tel bu dee rajo alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi al amin wa alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh